Ah, ci tàggat yaram mbokk yi la ñu daal di dellu si Mame Fatou Ndoye la ñuy dellu si ànd ci ak moom ci atal gi Mame dëgg la euh, Pape Ngagne euh, ñu doore ak euh, lii ci wàllu football ak championnat bu Ligue 1 bi xam nañ nag kañ la playoff yi di tàmbali fukki fan. ci weeru juin décision bi nag ki ko xamle mooy ñi nga xam ne ñooy saytu ligue euh, donc football professionnel bi di ligue sénégalaise bi euh, ñoom nag euh, ñu fas yéene journée bu nekk fexe ba benn match am Dakar waaye benn match tamit am ci région yi ndax ñaari équipe yoo xam ne ci région yi la ñu soxeexoo muy jàmbaar ak Casa soxla nañ seen public ligue sénégalaise tamit di wut fi mu ne nii sponsor ngir mën a yembal loolu lu nga xam ne mooy euh, mini championnat bi gannaaw ba ñu xamee ñi nga xam ne qualifié nañ ci playoff yi xanaa ñu fàttali ko ko rek muy euh, jàmbaar US Wakam ñaari tali ak euh, Casa Sport euh, ci wàllu football waaye ci discipline yu gën a yaatu muy euh, Jeux olympiques Londres 2012 kii di Didier Drogba démb moo yore woon flam olympique bi moom fële ca Londres gannaaw ba mu gagné lii di Ligue des champions samedi moom nag muy joueur bu Angleterre ràññee ak waa Chelsea moom nag ni ngeen ko gisee ñu bëri nekkoon nañ ci yoon yi di ay junni junni nit ngir tàccu ko. Euh, gannaaw tamit ba nga xam ne annoncé na moom day quitté Chelsea euh, gannaaw saison bi nga xamante ni euh, jeex na ñu dellu si waat fii ci Sénégal wax ci wàllu basket ak lii di projet bu tudd Casa d'Espagne ay donc fédération sénégalaise espagnole bu basketball fédération espagnole bu basketball fas yéene jàppale fédération sénégalaise bu basket dimbali leen ngir ñu saytu li nga xamante ni ay terrain la ñu bëgg def fii waaye dimbali xale yi tamit euh, ñuy pratiquer seen sport waaye di jàngale li tax nag euh, ñu taamu euh, Sénégal ndax yaakaar nañ ni Sénégal am na ay perspectives de développement ci wàllu basket waaye tamit niveau basket am baax na xanaa ñu déglu ci ki nga xam ne moo jiite fédération espagnole bu basket muy José Luis Sáez ci micro Abdou Aziz Ndiaye ak Mardia El, el cumplimiento de, de los, de, de los compromisos de candidatura con li tax Espagne décidé taxawal projet bu mel ni Sénégal Espagne dafa waxtaan nag fédération Sénégal bu basketball ndax dañoo gis ne basket bi suqaliku na bu baax Sénégal looloo tax ñu décidé def projet bi fii te booy xool tamit Sénégal dafa am ñaari ponk yu am solo lool benn bi di xarañ gi ci benn bi di xarañ gi jëm ci wàllu basket bi bi ci des tamit di physique te physique ñëpp xam nañ ne dafa am solo ci tàggat yaram. Nous pensions que Sénégal c'est le pays avec les plus de possibilités de développement dans le monde du basketball. tey ci suba nag euh, fële ca Hann Mariste ñaari fédération yi lëkkaloo nañ euh, ngir taxawal euh, lii di projet boobu di Casa d'Espagne ki ko topp nag mooy Abdou Aziz Ndiaye ñu déglu reportage fédération sénégalaise bu basket euh, gis na njëriñam ci jëflanteem ak fédération espagnole de basket ndax jural na ko benn projet bu ñu tuddee Casa d'Espagne béréb la boo xam ni xale yi mën nañ fa jàng ba pare di tàggat basket. donc je pense que dans dans, dans, dans vingt 20 ans, on aura encore de super basketteurs, peut-être plus forts que ce que nous avons toujours connu. Donc, euh, président fédération bu am lu mel nii ah, nga xam ne li ñu fi dépensé ëpp na plus de 300 millions loolu laa koy xayma rek mais bu ñu ko calculer ba nga xam ne toog nañ calculer li ñu fi def ëpp na 300 millions parce que xam nga ne tabax yombul donc euh, et puis sans plus que xale yi fii euh, non seulement dañuy jàng ba pare te ñu fay dara. rax dolli en plus fii la ñu añee ñoom dañ ñu financer en même temps jox ñu xaalis pour ñu euh, euh, embaucher ay entraîneur euh, ak ay administratif pour gérer xale yi gérer problème xale yi mayo xale yi dallu xale yi ballon xale yi ak entraîneur yi nga xam ne maintenant nag dañuy jël seen temps pour ñëw entraîner fin du mois fédération Faleb. maire Dakar bii di xalifa Khalifa Ababacar Sall rafetlu na jàppale bii fédération espagnole de basket jàppale Sénégal. avec qui nous pu faire ce projet. am nañ mbégte lool ni suñu xarit yi nangoo gunge ci projet bi ah, muy projet bu ñuy rafetlu bu baax tey fas yéene nañ ko inauguré te dinañ ci def suñu kéemtalaay kàttan ngir xale yi mën di boole seen njàng ak basket bi. auront fini leur année scolaire et commenceront à taper du basket. bu weesoo loolu fédération espagnole de basket jox na naataangoom bu Sénégal lu toll ci 300 millions ci sunu koppar pour mu mën tabax ay terrain basket ci gox-goxaat yi nekk ci Sénégal. Casa bi nag euh, bu njëkk ba nekk fële ca Hann Mariste euh, foofu la ñuy ndax keppe euh, wàllu tàggat yaram Pape Ngagne